bile sàkkuteef dafay wane place bi nga xam ne administration bi ak askan wi am nañu ko ci ñu amal lii di rupture jaarale ko ci ay manquement ak défaillance yi nga xam ne gis nañu ko ci pouvoir administratif bi waaye tamit ci état bi ndax nag lii di wàllu ger bëgg lu yomb ak tayel dafay yàq li nga xamante ne mooy administration publique bi te amul benn njariñ rawatina li muy lekk ci budget bi kenn mënu ko lim naam sax nag mooy colonne vertébrale euh, projet bii nga xam ne moom la ñu sumb moo tax majorité bu yees bii dafa war a fexe rek amul ab politique ngir fexe ba administration publique boobee doon li nga xam ne mooy dëgëral sukkali waaye tamit indi yorin bu sell ci wàllu politique wàllu koom bu ko defee rek ñu mën a amal lépp luy rupture ci jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy am ci wàllu cosaan ak aada yooyu les agents waaye tam état bi rawatina askan wi agent wu état yooyu nag ñoom ñooy seetu gëm-gëm yi nga xamante ne acteurs politiques yi ak citoyens yi dañu ko am muy nag ay rëq-rëq ci seen wàllu doxalin nga xam ne ñi nekk ci société bi yépp dañ cee teg seen tànk te loolee rek moom moo tax administration bi wala état bi daldi lompoñ lu ci mel ni clientélisme waaye fexe ba jël sa xarit teg sa wet wala sax sa dëkkandoo wala ñu bokk lu ñuy liggéey wala sax ngeen bokk cosaan wala aada wala ngëm-ngëm ci wàllu diine ba sukkali lii di administration bi dafay dal di metti waaye tax na ba ay mission yi nga xam ne moo tax a jóg organes yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ak ci baas bi wala mu dal di jàppale askan wi niñ ko sàkkoo woon dootul mën a nekk askan boobay nga xam ne dañoo bëgg ay mbirum wuruj bëgg lu yomb ut yoon bu gën a gaaw waaye tamit di geraate moo tax ñetteelu alternance bi nag su bëggee lu ni mu dal di deñ dafa war a amal ab programme amal ko ci diir bu gàtt wëyal ko waaye tamit ci diir bu sori ndax nag mënoo xëy rek am baguette magique dal di soppi administration bi nga xamante ne seen i jëfin dafay yàgg loolu waaye tamit seen i mentalité ak ni ñuy doxalee ci wàllu politique bi lu ci mel ni amal doxalin bu sell ànd ci ak fullaak fayda waaye tamit amal suivi loolu rek mooy tax ñu mën a dal di soppi xar kanamu service public bi dal di soppi mentalité yi waaye tam fexe ba askan wi amal comportement bu gën